alhamdulillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar soxna Roqe ñu ngi lay fay nuyoo di nuyu itam mbooloom internet yu IGFM point sn waa alhamdulillah soxna Roqe loolu xanaa jëkk mitit lu ko di ñaan tam ñi koy def ñu bàyyi xel ni bari na ci koo xam ni bu doon way juree ma tëdd du ko def bu doon frère ma tëdd du ko def bu doon sœur ma tëdd du ko def kon loolu dafay wane ni ñun tam dañu am matériel yoo xam ni nim nu war a gunge euh, souvent duy positif mais dafay négatif donc tey jii euh, sa téléphone soo ko yoree yem ci nit ku gaañu moo xam dafa dee moo xam dafa gaañu gaañu bu metti yow sa xalaat mooy woote ñu wàllu ko mm. waaye du filmer ko pour wane ko te ci yoon am na image yoo xam ni dafa képp ku ko def sax respecté woo société bi man nag jàpp naa ni ñi ëpp ñu koy def bari nan nag doo cité ñenn dong donte ñi ñi ci gën a fés dañuy woowee woo seen bopp xëy na peut-être journaliste wala lu ci mais liñ gis mooy léegi mbooloom koo gis rek am na ruq wala ginnaaw euh, téléphone wala euh, ordinateur boo xam ne mën na ca làqu def yenn yi mais loolu jaaduwut jaaduwut ndax ñaar bi ci jiitu mooy jaaduwut ndax kersa nit ku ne dafa am lu nu koy ruse rawatina nag koo xam ne dem na ba ni làcc dib néew te fii mu tëdd tëralu fi boppam te ki ko fi tëralit yow du la fi ba kon yow xalaat boobu dafa war njëkk a ñëw ci sa bopp kon nag looy génne ci moom rek war na rafet war na rafet waaye diggante sang sang suul loolu yoonu e, camera nekku ci moo tax nag gis nga ci cosaanal néew néew bu njëkk képp kuy dund nag war na ci taxawaat da ngay jàngal say proche ñi la jege moo xam say doom lan moo xam say frère moo xam say jarbaat wala yooyu ñi ngay yar nga jàngal leen nu ñuy defaree néew am na ñoo xam am néew rek jël yóbbu ca margu ba ña ko xubbi ci saabu wàññeeku jaay saabu ba hmm. xam nga loolu lu ñaaw la ah am na ñoo xam ne dañuy am néew yóbbu ca màggu ba mu nekk ci anam boo xam ne nit ki après day wàññeeku mën ko nettali loolu lu ñaaw la am ñoo xam ne dañuy àgg sax ba ci photo ko wala filmer ko muy lu ñaaw a ñaaw kon képp kenn ci ñun su amee néew war na jàng xam naa dinañ ci ñëw bis incha allah wane ko ni ñuy préparer néew mm-hmm. ndax génn àddina yàlla mooy xam kenn ku ne ci anam bi koy defee am na ñoo xam seen sukuraat dafa metti am ñoo xam ne nelaw jaare fa am yu bari def ci aju su ko defee nag yow say poche ñoo la war a jël dugal la ci néegu biir wala wanag la ko mag ñi daan tuddee mooy léegi mën na nekk sax douche intérieure ñu tëral la fa xubbi la jël saabu raxas la ba nga set ah, ñu sook la sànge lu set lu baax lu xeeñ lu neex sook la génne ñu préparé la su fekkee ñooñu mën nañ la defar ñu defaral leen seen bopp mbokk yi foofu la àddina bi toll ndax léegi koo jox sa néew rek parce que nit ñi ñoo bindoo noonu bu njëkk mag ñi ñi daan sang néew day nekk nit ñu mature ñu mat ñoo xam ni euh, c'est pas pour hasard mu nekkoon ay mère ak i parce que da daan nekk ñoo xam ni dañuy traversé ci addina lu bari xam lu bari léegi nag ñi koy def ñi ci ëpp sax maitriser wuñ ko pour ñu téye sa néew sangu ko sang bi ci war dafa jafe kon nag mbokk yi kenn ku nekk kër gu ne war na am koo xam ni mën na jiite ji jiite nit ñuy julli kër gu ne war na am koo xam ni war na xam nu ñuy toppatoo néew nu ñuy jàngalee sangu farata nu ñuy jàngalee nangam ak nangam yooyu farata la surtout ci waxtu wi nu toll ku am sa doom yee ko ci loolu soo génnee àddina mu ji mu jiitu ci yow su jiitoo ci yow kenn du am lu mu nettali suñ la jëlee nag ba yóbbu ci armeel ya yéen ñi ci topp képp ku am téléphone ngallawaay la wala sa kamera amal kersa ci sa digganteeg sa borom mm-hmm. ah mm-hmm. ndax kooku tëdd tey ngay wuññi suturaam parce que sànq wax naa ni kersa daf ci ne parce que néew sutura la yéen ci bi bi muy misaal jigéen ci kersa da ko ni jigéen ñaari sutura la am muy néegu sey ak biir bàmmeel bàmmeel na mu umpee noonu nga war a yiire parce que li tax muy kumpa mooy li ngay daj lépp yàlla mënoon na la ko wan am na ñoo xam xama fa seen mbugal di commencé soxna roqe mhm. mooy suñ leen tëralee di leen jullee jaan day ñëw laxasu leen fi ñu tëdd di wax ak ñoom jaat ji di wax ak ñoom jàkka ji di wax ak ñoom jaat ji naan la tey xanaa bi nga mënatul dara ba nu jëlee la ci indi la sang la sang la tëral la ci yat fas la yóbbu ci yat mu ni ko ci nga nem jàkka ji naan ko ba ngay dund dey place bii mbooloom koo fi gis mu taxaw daf la ko lebal waaye du loo du du lun lay fay mosoo fee jullee farata waaye mosoo fee taxaw jullee néew ñu di ko yóbbu ñu jàppoo ko ti dem jaat ji di wax ak moom yow day tey day lii lépp ak ñi la topp bor la boo xam ne te naroo ko fay ndax yaa ngi nii mënaloo sa bopp dara biñ la takkee ba nga ni ngodd indi la tëral ci yat jëmee la ci yat am na ñu wax ni jaan bu dee mbugal mi foofu jaan ju ko wër ba ñëw ci digg bopp bi modd ko foofu yàlla di ko mbugal waaye loolu lépp su ko yàlla mag mu toll ni yàlla am ci sañ-sañ moom ki tëdd muñ mën koo nëbb suturaal ki dem kon yow nga la yow lu tee nga suturaal ki dem kon loolu farata la noonu ma waxee ni ki ñuy mbugal tam noonu la ñuy nit jaat ji bég ci moom nooy ci moom du wow ba pare nag di ko di ko kañ di ko bakk comme soldat bu jëm guerre nan ko yaay jàmbaar yow day ku ne xam na ni làcc ji nga def day jàkk ji rusut ci yow jaat jin la téye waaye palace buñ la téye rusul ndax ku ko doon taxawe nga ku ko doon dunde nga ku ko doon teg ci yoon nga kon nag ñi ngi la jëlee ci kër waaye na nga kër gën la jëmee dàq ñi ngi lay dugali ci bàmmeel waaye na nga yëg ni biñ lay dugal day ah moo dàq pale bi nga tabaxal sa bopp ndax tey soo wàccee malaaka yaa ngi taxaw ñoom ñëpp defi sappe saffan saffa di la teeru ngir lan dund seen digali borom te mooy yaateel sa bàmmeel ba mu fa ba faw leeral ko ba faw bis bu ne ñu indil la audience su wéttal képp koo namm ci àddina kon nag nga dem ca àtte ba yàlla àtte ba pare di la wax radiyallahu anhu yow it ngay delloo sa borom wa radu anhu zalika liman xashiya rabba ñii ñoo ragal seen borom kon mbokk yi ñi ngi ñaaxaat ñëpp jëkkee ko ci sunu bopp képp ku génnati àddina na ngeen xam ni waroo jël sa téléphone di filmer bàmmeelam wala ngay filmer néew bi di ko exposer ci àddina yaa ngi wëññi suturaam te yàlla dafa bëgg doomu aadama dafa bëgg ñu suturaal moo tax même nit ki lu bon bon bon su dee sunu borom day wax malaaka yi soxlawuma fa dara lu may ngeen laajal ma ay baaxam moo ne waaw yàlla gën a xam ñëpp ku ne li nga jëf xam na ko su ne dem leen ngeen laajal néew bi ay seede mooy dafa bëgg rek may ko prox ndoll bu mu profité def lu baax moo tax képp ku génn àddina lu ngeen xam ci lu baax la yonent bi wax wax leen ko lu ngeen xam ci lu ñaaw nëbb leen ko laaj nu leen ko soxlawunu ko xam kon mbokk yi loolu mooy li war a am soxna Roqaya ñi ngi lay delloo ziar ak ñaan di jéggalu mbooloom internet yépp di leen wax ngeen abonné ci seen iGFM point sn ngeen abonné ci su ko defee ngeen di am seen waxtaan yi ak yeneen yi ciy daw yépp nga xam ni njariñal nit ñi la njariñal société bi la assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu